olmayacak. eylemler organizelemeli, eylemler Amin Mısır, Mahkemede Kumbak, Sisi, Bin Aksal, eylemler Khan, asistan piyasa, ayah, ayah untuk pekerjaan, eylemler. Politik ini sini, kalau tidak, eylemler tidak, eylemler bisa ada ke luar kerana kalau masih ada jualan, eylemler servir untuk melakukan nasional itu, ada. daje tey bii lu ko waral moom mooy euh, jàppale béykat yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci euh, zone des Niayes mooy béykatu légumes yi béykatu fruits yi ak béykatu ñi nga xam ñoom ñoo nekk ci ay fleurs ak yooyu yëpp te ñu liggéey euh, diggante Ndar ak Ndakaaru projet bi nag li tax mu def ko mooy dafa ñu yor xaalis boo xamante ni pour financer béykat yooyu la ba ñu defee sélection bi ba pare ñi nga xam ni am nañu financement yi ñu woo leen tey ngir jox leen rek de façon symbolique seen financement euh, ndax euh, teewul sax euh, ku te ne la nga jot a amit viré nañ ko sa ba jàpp ni di ko jëfandikoo na nga xam ne moom moo ware sama tool tool na ci 4 hectares mais am woon moyen pour cultiver yëpp léegi dama jëloon un hectare rek

Euh, baykat mom bu toogee di xal financement vraiment euh, du euh, du baykat mais na fekk li nga xamni jox nañu ko dañuy gëna a doole rek jëlëñu point A yobuñu point B loolu mu doon loo xam ne vraiment lu am solo la. jafe jafe na jafewul ndax boo amee engagement bi ak détermination bi ak nit ñi nekk sa ginnaaw di la jàppale di la may force da ngay dem ndax passion la ci man moo tax. maraîchage yëpp ay légumes. ay poivron oignon tomate yëpp dama koy bañ ak ak salade yëpp dama koy bañ. li ñu joxe ci tey jii toll na ci ñetti téeméer ak euh, juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay millions yoo xamante ni si mooy première tranche bi ñu joxe nii te fii ak quelques semaines encore dañ engagé waat beneen processus de sélection boo xam dina mën a tax yeneen béykat ci zone day Niayes bi am euh, loo xam ne sax dina ëpp loolu dina ko ful ndax loolu mooy li nga xam ne moom lañ programmé ci 2022 bi première des choses mooy euh, euh, xaalisu mbay lañ ma ngénte déjà amour boobu day ñëw temps booy dañuy daan yóbbu di dem tool euh, di gis ñuy bay peut-être amour boobu foofu la jóge jóge ca tamit peut-être am nañ beneen activité bu dul bay muy coiffeur mais terewul tamit deretu bay dafa nekk ci ñun après ci la ñu wan ne àdduna li koy doxal du ay cër am xel la te ñàkkuñu ko te avec nouvelle technologie baykat bi mën naa bay ba pare te du sonn waaw foofu la ñu foofu foofu la toll quoi.

mais dina ma permettre yu bëri daal ma def ko ci financement bi macha allah. donc euh, doon na loo xamante ni si euh, ndaw ñi ñoom ñoo ko moom euh, jigéen ñi ñoom ñoo ko moom ak it mag ñi nga xamante ni ñoom ñoo jëngu ci mbayum mbéyum légume ak mbéyum fruit ci biir zone des Niayes. waaw li ma leen di ñaax ci bay mooy euh, euh, euh, àdduna li koy doxal moo du ay ay cër am xel la te ñàkkuñu ko nañu xool yan technique yan moyen lañ mën a def ba mën a sóobu ci tool parce que léegi ak comme ni ma ko waxee léegi rek avec nouvelle technologie mbay yomb na tey mën nañoo bay te duñu sonn kon nañu nañu jëm vers l'agriculture Euh, euh, gëstu ci du ñàkk tamit yéen ay projets yoo xam ne tey mën nañoo ñëw defal ñu ay euh, ay formation de renforcement de capacité pour ñi nga xam ne tey peut-être seen seen seen seen seen doxani seen dox yombul pour wax pour wax daal ni mbay léegi pour man yomb na ku ci ñëw pour intégrer ak say technique bopp di nga ci génn di jaajëfal bu baax a baax a baax paysan di leen sant bu baax a baax di di gërëm tamit suñu président euh, national di Issa Omar Bass kooku vraiment doon na un homme boo xam ne vraiment euh, euh, buñ ko dégloo topp ko dina jëlee mbay point A yóbbu ko point B di wax tamit projet paysan bi nañu tendre vers les les les associations handicapées pour gën leen a ñaax ñu gën a mën a dugg ci kii bi loolu mooy doon vraiment les mots bi nga xam ne ñu ngi koy sant di ko gërëma ñëpp